asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu sëriñ Cheikh eh, ñu ngi dalal saggan sunu xarit sunu wóolare monsieur le premier ministre Mohamed Boun Abdallah eh, di ko dalal ci ñëw gi mu fi ñëw ngir yoonu eh, ziyaar yoonu jaale waajur wi fi bàyyi ko woon di sunu waajur di waajuram soxna Kumba Seck mooy sunu xarit di sunu wóllëre fekk fi mbokk yu baax yi nga xam ni ah, ñoom la fi fekk mm, nga jiitu ci ak sa mag jële di sëñ Modou Fallou Lo mu sunu baay sëñ maxtar sëriñ Saalihu Lo ak njaboot gi ñoom sëñ Bada sëriñ Taala ñoom ñëpp ñu ngi nii sëñ Seex Jóob Lo fekk fi itam njabootu kër gi di ñoo xam ni ñu nu ràññee seen taxawaay ci ci dëkk bi ak ci yëngu yëngu bi nga fi ñu xam ñoo fi nekk di yëngu ngir lépp luy jariñ dëkk bi ak luy dooli dëkk bi ci biir nuyoo yi ñu doon jota léegi bi ma ne sëriñ Cheikh tudd sëñ Modou Fallou sëñ moorloo moo nekk nii di rakku sëriñ seex dama xaw dama dama dama koo jege ba ba dugg ci biiram <laughs> waaw ba dugg ci biiram rek mooy sëñ moorloo Lo ñu tudd ko sunu baay sëñ Mor Lo wàllu fang Euh, sëñ Modou Diouf mu ngi nii bokk ci ñi nga xam ne ñoo yore dëkk bi di jàppale sëñ Moustapha itam ci conseil dëkk bi euh, fekk fi tam sunu mbokk lay sekk mu sunu baay Ablaye Seck euh, ak magam sëñ di Baara sekk ni ki sëñ Babacar Diop ñëw fi teewal fi sa xarit sa njaboot muy euh, monsieur Sarr Ciss moom directeur de la solde noonu itam euh, sëñ Jibi Sey mi nga xam ne ku xam sëñ Cheikh ak kër gi moom moom dañoo xam ak moom noonu sëñ bay Fall moom sëñ Cheikh Fall ndigal waaw ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax a baax di di sant itam ci jéego yi ak mott li kóllëre gi nga def jëmale ko ci sunu jëmm yu xeebu yi. Euh, ñu ngi la ci sant bu baax a baax ndax ak yéeg la bu baax a baax xam nan bu baax dayo bi fi mu toll ci ñun mboolem ñëw boo fi mos ñëw nag euh, lu nu sant rek sunu sant tey gi moo moo ëpp doole ndax ndax day ak yéeg lu mu mën a doon dañ ko bokkoon muy sëñ Bayloo lu mu mën a doon dañ ko bokkoon muy réew mi lu mu mën a doon dañ ko bokkoon muy dëkk bi waaye lii nag jëmmi kër gii la te dara gënu cee rëy sëriñ Seex mi nga xamante ni moom la yàlla def mu nekk ci bopp njabootu sunu baay sëñ maxtarloo ak e, sunu jigéen yi ci biir kër gi ñoom soxna Xadi ñoom soxna Ayda ba ci sunu yaay ji nga xam ne mi ngi ci kër gi muy soxna Anta di rakk ci soxna si bi nga yëgee xew-xew bi wax dëgg yàlla ba léegi saa su ne yaa ngi ci jokkoo ak ñun xam nan yi yi yi yi la gaaroon xam nan ko ñu ngi ci doon ñaanit ba sama borom def na tawféex waaye bis bu ne rek yaa ngi bëgg a jóg ngir bëgg a ñëw mottali si kóllëre googu bu ma nee te ma la ko woyee fan mu ne sa waajur sunu waajur la ñëw bokk waajur wi sëñ Modou man damay ñëw wax dëgg yàlla loolu sëñ bi eh, lu ci ñun waaw lu dara gënta rëy maanaam ñëw gii nga ñëw fii ci ñun ndax day ñëw mbokk day ñëw kër euh, day wane ni danoo bokk ndey danoo bokk baay te li nu ànde ak yow tamit euh, yi ci dolli ko da cee dolli ko waaye danoo doon famille léegi danoo doon famille moo tax yow loo nekk lu mu mën a doon rek ña nga ca su ma amee ay nit ak ay wëllëre sax bëgg ñëw ñu xamante ak yow loolu li ma ci jublu rek bëgg euh, jàpp gi ma gi ma la jàppal sama bopp dama doy ma bëgg ñu jàppale ma waaw waaw loolu loolu rek sàddale ma ci jàppale gi ak it bëgg ngay xam ni samay samay nit a ngi nii mm-hmm. ñoo xam ne bëgg naa lépp loo xamante nekk nga ci mm-hmm. euh, boo geesoo rek gis ma geesu gis leen Euh, li nga xam ne sax am na loo xam ne ñoo ma ci ëpp man-man sax ak kàttan ak sañ-sañ sax bëgg naa ñu sàddale ma loola ci yow. waaw te loola lépp jëm ci ki nga xam ne yow si génn yi tey du ñaar du ñett mooy président de la république faaw yooyu ñu di ko bàyyi xel moom li nu boole dama ko wax ne ko na ñëw yeesal si kóolóor ak président ci kër gi yeesal ko ci njabootu suñu béyloo gii. mu xam ni moom mii kenn la ci koy liggéeyal président tax mu ne sëñ Modou loola moom maa ciy jiitu président sax far am jéego yum ci def yoo xam ne moo war waral suñuy gisee ak suñuy jokkoo muy lu yaatu lu gudd loo xam ne kenn mënu ko misaal kenn mënu koo rëdd wax dëgg yàlla jëf ju rafet yu ne def na ko ñëw na fii eh, bisu màggalu sëñ maam mbayloo teeral njabootuk sëñ mbayloo gi siggil kër gi siggil goo xamante ni ba ca sunu njaboot ga ca Gossas ñoom ñëpp eh, gis nañ ci seen bopp bu baax a baax a baax a baax ci eh, jël goo jël seen responsabilité ci njabootuk sëñ mbayloo lépp ngir ngir gën koo taarale diggante kër gi ak président de la république loolu wax dëgg yàlla du nu man lu dul sant la njaboot gi yëpp kër gi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant ci sa teewaay ci ñëw gi nga ñëw fii saafonte si ak njabootu sëñ Maxtaar loo ci sunu waajur soxna Kumba di sa waajur euh, loolu ñu ngi ci sant sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem xam naa li may def rek mooy jox la kàddu yi rek nga joxal kàddu yi jaal rek ba ñëpp xam ni waa dëkk bépp xam ni euh, yow daal ku matal waaw ku matal kóllëre nga waaw waaw afo bil ahdi inal ahda kaana masulan yow mii matal nga ko bu wér a wér a wér a wér te lii moom dara gënut cee doy firnde boo yeble woon mu doy wallaay laasim sa si wër sax boo ko dana rëy ci ñun lay bu wéree a wér a wér te big ñëw na fi ndeysaan xool doxin wi ak yoon wi moom it di ab taalibe ñu ngi la koy seedeel bu baax a baax eh, nii la yàlla melal rek noonu la melal say nit noonu la melal say say wóllëre noonu la melal say waay ba tax na kon daal mënuñu lu dul sant la bu baax a baax ci turu Serigne Cheikh euh, turu Serigne moor turu suñu mag yu baax ñoom sëñ Modou ba ci turu sëñ Amdi Moussa mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Bayloo euh, ñu ngi lay sant ci turu njaboot gi yëpp ak turu waajur yi. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallim jërëjëf sëñ Touba jërëjëf Cheikh Ibra ñoo ngi sant. ndax euh, fan yii yëpp bi bi suñu yaay wàccee liggéey wax naa ko sànq soxna Kumba Seck bi deful waxtu nga woo ma wax ma ko ñu waxante boobu dama yore malaat nga ne ma ñu d'accord it ne dinañ ko déey directeur de cabinet président suñu xarit di sa xarit mm-hmm. Augustin Tine mm-hmm. ñu war koo àggale président lu mu gën a gaaw mm-hmm. Augustin moom it miin na kër gi ñoo fi daan ànd euh, maa fi waroon a njëkk ndax cofeel cofeel bu nekk suñu diggante cofeel bu nekk diggante président ak famille bi sëñ Cheikh di suñu xalif di sa mag wax na ko sànq moom ak euh, xalif bu njaboot sëñ Mambay Lo ñoom ñaar la président recevoir ron fii ci gouvernance ci guddi euh, boobu man maa ngi doog a jóge bitim réew sax di toppatoo PSE ñëw ànd ak moom euh, ba ñuy ñëw keroog defe naa ci otoom la ma dee sax man ba ñibbee daguñu ca tuuti mu jox ma primature te ba ñuy jógee Dakar di ñëw ñoo ànd ci otom ñoo nga njëkkee fee ca NSTS ca Fall man moom rek ñoo nekkoon ca gannaaw ñu dee donc keroog it ci guddi gi gis na sa xalif xalif bi fi nekkoon gis suñu frère boole ci sama seen Cheikh ak donc pour wax ne moom président ci boppam digganteem ak famille bi lu yàgg la man lu ma témoigner day fekk mu wóor ma donc euh, loolu euh, bu fi lii duggee ci kër gi ala kulliyaal il faut ñu ñëw toog ci seen wet jox leen njaalu président jox leen tiit suñu njaal jox leen njaalu ay xarit xarit yëpp ñi nga xam ne ñoo ko bokk euh, tudd nga fi Charles Cissé jour ba ngay ñëw primature ànd ak euh, waa quartier bi yëpp dafa fekk Charles ma ne dama leen di boole bon audience Charles xam naa ne ndaayaan Popenguine lay gën a yëngatu. wante Cees it bari na fi mbokk. ma ne ko Charles. dénk naa la sëñ bi. teraanga booy defati Cees. Medina Fall na fa dugg. pencum looyeen na ci jot wàllam. te defe naa ne mu nga ci loolu ba léegi. ah euh, suñu rakk euh, le ministre de l'artisanat Pape Amadou. magam ñoo bokk sixième ba bac maître Moustapha moom duudu lañ koy wooyee ñun mu nekkoon suñu rak bala maa muy nekk fii docteur Thiès amitié la nekkoon docteur sama wetu kër booba sama kër lay naa nekk affaire bis bu nekk waaw kooku sama rakka waaw sama xarit la sama rakk la waaw donc xam naa ko bu baax a baax a baax ah mi ngoog ah ban cité Malick si waaw mi ngoog <laughs> ah ba ngoog donc euh, voilà donc euh, ñooñu ñëpp li ñu boole dafa bari. ndax ñoo ñoo bokkee xarit. Euh, dafa sama ci moom laa ko daan dégg mu naan montre yu baax yëpp bokk heure. waaw donc ñun ñëpp ànd. dama ne woon rek tey dinaa ñëw ànd ak sama frère sama xarit sama rakk jële toog di Ablaye Fofana Seck dëkk fii ah, waaw grand journaliste waaw. <laughs> dëkk dëkk fii ci Thiès euh, suñu ay baay daan euh, ànd suñuy maam di ànd euh, muy sama xarit sama rak su may ñëw ma ne ko ah Ablaye ànduma kenn Thiès mais dinaa ñëw sa kër ñu ànd ñaan naa la ko ñu ñu ñu gunge ma pencum looyeen ah ma yóbbu fa sama njaal waaw di sàkku it ñaan nag ci réew mi di sàkku ñaan it ci ci sama kilifa gi. ngay sëñ bi di ko gën a dénk. nga gën koo ñaanal. ndax àdduna fu muy toll. Mhm. dina am fu àdduna di toll. Mhm. fii mu nekk mhm. Europe yëpp ñëpp a jaaxle. guerre mondiale la ñuy wax. fi mu nekk nii. ragal nañu ay bomb nucléaire sax am. àdduna am na fu muy toll liy yore am réew mooy stabilité ak dal réew mi nag fi mu àdduna bi fi mu toll fi mu ne ah essence jafe na léegi am lekk jafe naa am lépp di cher booy dégg ngeen sax président ñu ne 43 milliards mu ngi koy dolli jox ci askan wi pour nit ñi gën cee mën a génn réew bu àdduna bu tolloo noonu li koy yore mooy ak dal stabilité wante bu fekkee ndax am na lu ñuy dëgmal moo tax may sàkku ñaan bu fekkee président bi bu nee a gouvernement ba ne bee ndax falu leen amatul baat ci ñoom bu nee a am bu ab premier ministre boo xam ne ñeneen a ko tànn du moom ñooñu ne see kon réew ma nu muy doxe boo nee dinaa génne 43 milliards pour dimbale nit ñi premier ministre ba ne déedéet man dama koy jënde essence walla dama ci jënd ay fetal problème dikk donc fi ñu toll nii réew mi dafa soxla ak dal ak stabilité waaw loolooy mën a tax l'action publique di mën a continuer moo tax sëñ bi dara sàkku ñaan ci yow yow ak say sa mag jee toog ah, ak waaw famille bi yëpp ñu ñaan li nga xam ne dañ koo dëgmal yàlla may ci ndam ki nga xam ne moom la dénk réew mi ndax ndam boobu mooy nekk ndamu Sénégal ndax fii àdduna bi toll la fi mu nekk waaw àdduna bi fi mu toll la loolu rek euh, ngeen bisu euh, tey euh, ñëwoon jàll la wante su ma toogee yow dinaa ñemee sàkku la ñaan ndax yàgg nga ko ñaanal mu toog fii <laughs> donc ko sàkkuwaat jërëjëf ngeen baal ma àq allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf. di ñaanal président jàmm ji mu bëgg ci réew mi ji mu bëgg ci réew mi yàlla def ko yàlla def ko. nañ ci am yaakaar. te it ci am yaakaar. ndax sëñ Abdul Ahad waxoon na ni. wa kasiran xayraati haazal baladi. wa rishahu wal takfihi annaka di. nee na ba ko sëñ Tubaay wax. nee na ba ko sëñ Tubaay wax. kuy wax amin néewu wax amin néewu fa. te la mu ñaanoon te la mu mooy jàmmi réew mi rek mooy jàmmi réew mi rek. ak mucc réew mi ak xéwal réew mi. kon ne seen xel dal ni. ay woowee. ay woowee. la muy sori sori. la muy sori yàlla dana ko seral. ci barkeb sëñ Touba. ci barkeb sëñ Touba. barke Cheikh Mountakha mi noo ngi koy ñaan. ma ngi koy ñaan ma ngi koy ñaan te yàlla dana ko def. jàmm dana am ci réew mi dana am ci réew mi. li ngeen di bëgg. noo ngi leen di ñaanal. ci barkeb sëñ Tuubaa doole Cheikh Ibra barke sëñ Bayloo yàlla defal leen ko. ñoo ngi ñaanal waajur yi ne barsàq njéggal ak yërmande yal na ko yàlla def waajur yooyu suñu maam Serigne Babacar Lo mi sanc penc mi jiitu ci ak mag magi góori yàlla yi mu àndaloon yëpp ñoom ñëpp ñu ngi barsàq di nuyu sëriñ bi ñoo bokk baay di nuyu monsieur le premier ministre di yëkkati sama kàddu ci turu conseil de quartier bu Medina Fall sëñ Amdi Moustapha Lo mi nekk délégué de quartier yàlla def na man may deuxième adjoint wante di koy yëkkati ci turu képp ku dëkk ci quartier bi sunu xol woyof na parce que dañu xam ni am na benn vide bu nekk bu rëy bu nekk ci réew am na bu ñu la wax kilifa bu ñu la wax ab benn Abdoulaye Dione bi mu fi nekkee yàlla def na jafe-jafe yu réew mi daan am moom moo nekkoon en tampon entre le président Sall ak ak ak ak ak askan wi. man mi wax ak yow nag dama bokk ci responsable national des parents d'élèves du Sénégal parce que j'ai en en charge l'organisation de la fédération nationale des parents d'élèves duma la wax crise scolaire bi fi jaar na nga daan jouer rôle bi nga daan jouer syndicat d'enseignants yi ñun parents d'élèves su ñu musaa jaaxle ci yow la ñuy ñëw nga arbitrer nu périodiquement nga daan tenir ay réunion di arbitrer di régler problème yi crise de la santé bii fi xew ci démb ñooy jooy nañu benn Abdoulaye Dione